cheikh wax na ni xuru neen yi tànn nañu jëkkër ba noppi seetal loolu xuru neen yi tànn nañu jëkkër ba noppi kenn ku ne xam nga ka nga jël jëkkër ñu ni nag bu fekkee ka ñu jël jëkkër am na jabar ñu ni du ci dara jabar ja duñu ko jàppe wujju njëkkee lañ koy jàppe parce que foofa noonante amul wujjante amul teranga rek a fa am bu ko defee buñ la jëlee jëkkër te am nga jabar ñu jàppe ko njëkkee te ñu ngay waajal ñépp nag ci confection rek la ñu dëkk di ko def ci ñaari tissu yu nga xam ni ñoo ëpp valeur ci tissu yu ci àdduna yépp mooy sundus ak istabraq yàlla tudd na leen ci alquran ñu ngay ñëw rek di tegal seen jëkkër yi waaw lenn rek lan dul ñëw parce que nee ñu civilisé wul mooy tubéy nanguwuñu seen jëkkër takk tubéy làmbaay rek lu muy doyee ci tubéy loolu kay doyee su tubéy dara làmbaay rek kese kese ndax tubéy yëfi agem la waaye làmbaay nag koo xam ne waxtu wu ne yaa ngi soxla sa jabar kay ci làmbaay rek ngay mën a dëkk ba moo tax def naa ko ci xasida bi ma def ci sama turandoo waaw wal xuuru min bayni